man Serigne Mboup man l'insalubrité à Kaolack man ça me parle quoi. c'est-à-dire insalubrité bi am Kaolack. Mm. man loolu daf ma yéem. yan jéego. mais loolu moo tax yéen da ngeen a toog fii xamu leen li xew Kaolack. ah déedéet c'était bien que bala ngeen a def émission bi. waaw ngeen dem fa visiter xool. mais Kaolack amatu fa amatu fa. maa la ko wax maa ngi taxaw di jàkkaarloo ak waa Kaolack kay. almadi moo gën a salte Kaolack. loolu sëñ li ma la wax kay maa la ko wax. man kay li ma la wax kay. Ah, ça a changé grâce à à à kii grâce à partenariat avec UCG Kaolack est propre loolu kay maa ko wax. Ah, waxuma ne nag ba ba bàyyi ko mu terminer Serigne. attends su dee yoo Anne Marie moo ëpp yoo Kaolack Kaolack yooyu wax na ko <laughs> dégg dama dama lay wax non xam nga li li metti ci sa li nekk li metti mooy li metti mooy dama non non li metti mooy metti mooy man bi ma nekkul maire sax j'ai refusé de que Kaolack dafa saleté Kaolack dafa amoon benn problème mooy dafa am dépositoire yi nga xam ne nii mooy booy duggu mooy booy dugg mooy mbalit mi moo lay teeru mais loolu boo demee Diourbel ma nga fa boo demee saint ma nga fa dafa am loo xam ne ni ay na ma ma ñëw ñoo koy ñoo koy tàmm di ko wax mu am nag leneen loo xam ne Kaolack waaye ñoo ko tàmm mooy jël sa mbarit tuur ci kanaal loolu moom nag nit ñi ñoo war a changer parce que ñun ci li ñuy liggéey demuñ ci uniquement rek pour wax ne dañuy tonni mbalit dañoo bëgg nit ñi changer habitude loolu daf ci am parce que mbalit boo boo nettoyé ba mu set nit ñëw tuur kan nga war a waxal ki ko fa tuur mm-hmm. voilà mais jàppal ne tey tey image bi Kaolack amoon ci Kaolack dafa salte image bi amoon Kaolack dafa bari yoo a changé beaucoup. mais est-ce que c'est pas le politique qui parle. qui qui maanaam du politique est-ce que du politique moom may wax. mais réalité bi. mais man ñam naa yemen xoolal non Kaolack ci yow laa dégg gi nga ne Kaolack moo a bàyyi ko mu terminer comme ça nga répondre dama ne la waaw dama ne la franchement dama ne la yeb naa Kaolack waaye ah. ba toog fi ñoom ñëpp di ma seetaan hmm. ma leen di wax loolu xam nga li am solo hmm. mooy in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu fatabayyanu li ngeen di wax moo amul mais man tabayin man euh, tabayin lay def nii. waa léegi kay li koy def mooy. xam nga li koy def mooy. déedéet man maa lay mujj Kaolack maa la gën a xam Kaolack. maa la d'accord mais man damaa daan dem Kaolack. waaw da nga daan dem wax. waaye dem waaw waaw danga daan dem nga wax. Ah. li ma la wax maay maire ba. Hmm. nee naa la Kaolack cet gi changé na. léegi nag hmm. su la neexee bu la neexee semaine prochaine ñu ànd ñu def visiter nga ne ma waat fii wala naa la waxuma la doo gis seen waxuma non attends doo ko gis waxuma la doo gis mais. les points de propreté waxuma la man rek la de je remercie l'État avec IGC on a travaillé à chaque jour on est en de travailler tous les jours on est en de travailler loolu moom. soo jëlee Kaolack danañ la wax ne la fi nekkoon sotti ko na. léegi sëriñ bàyyil Mansour mu terminé. après comme saa ça xam nga boo laajee mu tontu la da ngay doyloo li tontu ba nga gis le contraire nee naa la Kaolack salteetul set na yemal ci loolu ba gis le contraire.